إذ يقول wax amul dara xewul waaye kii mooy kan nee naa la ndaanaan ku lu fadiri ndaanaan ci ndaanaan ah Touba Seck ngi noonu borom di jaay ay accessoires yoo xam ne amul fenn nee naa leen xale bi ngeen déggoon mu séeréer ba ca Bambey moom moo ko defar ba mel ni madab tool dëgg neexul ana grande dame yi ñoom laay waxal ana xale yu pare dem leen ci Seck ndaanaan ana jéeg nga xam ne bëgguñoo la bu ngeen ko bëggee nag da ngeen di dem ci nga xam ne moo di Seck ndaanaan ndax collier yoo xam ne comme jam bisi yoo xam ne comme jama si namee am nag yeneen leeral da ngay woote ci numéro boobu ndax la la teeru tatagal la xale bu am yar la xale bu jullite la waaye xale bu am taalibe bu def nag sarax la na nee naa la tekki ndaanaan day dindiwaale stress yéen ñi nga xam ne da ngeen di am stress tout temps woo leen tekki ndaanaan dëgg neexul mu jaay leen ay biis yu amul fenn defaral leen ko ba mu baax kon nag bu leen ko tàyyi benn asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur yu Guelongal TV lii benn histoire la bu jëm ci ku dul wax dëgg ak ñàkk wax dëgg lu mu ko mën a andil ci danger kii génn góor la woon ku nekk ci dëkk bi doonub sàmm waxambaane la sax di sàmm mais saa bu fekkee paayi dëkk bi ak waa dëkk bi togg di waxtaan di noppalu ci ker yi rek mu yuuxu na daw leen ñëw daw leen gaaw bukk ak lekk sama jur gi buñ dawee ba ñëw dagg seen yitte mu ree ba daanu ci suuf ne leen dama leen doon nax rek waaye dara jotuma benn bukki lekkul sama xar def ko benn yoon ñaareelu fan ba mu bàyyiwaat ba waa dëkk bi toogaat mu yuuxuwaat ne bukkee nga lekk sama jur gi ñu daw ñëw mu ne dama leen di nax ñetteel ba mu it mu def comme noonu rek te ñeenteelu fan ba nag ci la yàlla dogal bukki ñëw ca jur gi commencé di ci di ci jëfandiku di lekk mu ñëw rek gis bukki bi lekk di lekk ba rey bu ñaari xar bay commencé rey ñettel bi mu yuux wa dëkk bi daw leen ñëw gaaw leen gaaw leen gaaw leen bukki baa lekk sama xari wa waa dëkk bi lank ne duñ dem ndax parce que kii dañoo yeb ndax ñetti fan yi ni mu ñuy nax kon dañuy nax rek ci la yuuxoo yuho kenn ñewul ba bu ci bukk bi mujj lekk ci ay nax xaram yu bare bare bare bari ba mu ñibbisee ci caaw gi ñibbisi ci sàmm gi ñëw toog ci këram mer lool waa dëkk bi ne ko ah góor gi lan moo dal mu ne yéen kay bàyyi naa leen àdduna ak àllaaxira parce que nekku leen dëkk ndaw yu baax bukki mi jëfandikoo ci sama xar yi mi ngi koy lekk ma woo leen wallu ngeen lànk waa dëkk bi ne ko kaay nag yaa ko teg sa bopp ndax ñetti yoon mi ngi nii nga ñuy nax ñu yaakaar tey it dangaa waxut dëgg dañu doon nax moo tax ñëwuñ moo tax bukki yi lekk sa xar yi kon nit doomu aadama mi ngi noonu ku nekk ci sa kàddu lañ lay siisee am na ñoo xam ne boo nekkee waxkatu dëgg loo wax ñu gëm ko waaye am na ñoo xam ne bu ñu xasee xam ne nekkoo koy wax dëgg loo man di wax ci seen biir uhu rek lañ lay wax waaye boo leen rombee ñaari jéego ñu ne kii nekkul waxkatu dëgg kon dëgg képp ku ci nekk na nga ci sax waaye képp ku ci nekkul na nga ko bàyyi xam ne du la amal njëriñ àdduna ak alaaxira jërë ngeen jëf wassalaamu ala man ittaba al huda